نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun amaat nañu mbégte lool àndaat ak yéen Sans Limites TV votre site d'information tey nag dañoo ñëw fii nga xam ne moom mooy Daaru Jolof dëkkub Alaaji Sàmba Ndiobène Ka ñu ngi koy nuyu bu baax ñëw nag fekk si góor gu baax góor gu sell ma ne ma ne wóorul waaye su ñëpp ne yow rek yow ki ñëpp jox cër daal ko nangul mooy Cheikh Boubacar Sow sag bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yasir li amri waxlul uqdata min lisaani yaxfahu xawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah cheikh bi ñu ngi toll woon fa nga xam ne moom mooy ci garage bi dañoo ñëw ba ci garage bi laajte ki nga xam ne moom mooy cheikh Boubacar Sow ñu teg tegtal nañu ba sa kër mhm. cheikh bi loolu lan moo la ko may ah loolu defe naa ni li ma ko may hmm. Hmm, képp ku laajte cheikh Boubacar fii si daara dinañ la indi ba si incha allahu rabbi ñëpp xam nañ cheikh Boubacar te xam nañ li muy dox nan la. Mhm. Mm. d'accord ñu ñëw ci li nga xam ne moom nga gën a mën ci wàllu seet ci wàllu ñaan ci wàllu listixaar lu ci mën di doon yàllu saa borom dala cee may loo xam ne may la ci may ko kenn ñu ñëw ci seet bi nan la la dikkee ak booy seetal nit ki nan lay demee. waaw seet euh, seet dama ko fekk. Mhm. ba ma fekkee tamit yemuma foofu. Mhm. ma jàng ko tamit jàng naa seet suuf jàng naa listixaar jàng naa tamit ramli mhm. ak fépp foo mënta nekk muy si senegal muy si bitim réew su ma jotee sa tur ak sa sant ak at yi nga am mhm. incha allahu rabbi dinaa la seetal wax la say mbir mhm. incha allahu rabbi d'accord seet nag dafa bëri ay façon ñii ñi ngi seet ci loxo ñii di seet ci suuf ña ca des di seet ci ndox wala sax ci kurus cheikh bi ci lan lay seet moom. cheikh bi su fekkee ñoo ngi toog jàkkaarloo. Mhm. dama lay seetal ci suuf dama lay seetal tamit ci listixaar waaye xaar mhm. day jël day xaw a jël temps. Mhm. waaye gisaande nit ki mën na ñëw toog ngeen jàkkaarloo lu mat cinq minutes juróomi minutes nga seetal ko nga wax ko li la yàlla woon. incha allahu rabbi d'accord ñu ñëw ba tey ci li nga xam ne moom la la yàlla may te ñëpp nangul la ko maanaam ci wàllu faj laataa ñu ñëw sax ci leneen li mhm. faj bi nga xam ne moom ngay faj te yàlla may la ci loo xam ne mayu ko kenn mhm. ci kan nga ko donnee maa ngi ko donnee si sam benn maam bu tudd Daawud mm. moom laa doon uh, àndal mu saan yàlla na ko yàlla yërëm mhm. léegi génn na àdduna si moom daal laa jotee kéemtaan yooyu Mhm. d' accord moom la jot mais ba ñuy ñëw ci kër gi gis nañ fi rang boo xam ni kenn mënu ko kenn mënu ko natable ci dëkk bi nit ñaa ngi ñëw di xool si ki nga xam ne mooy Cheikh Boubacar Sow ndax li ko yàlla may mhm. ci wàllu faj gi mhm. cheikh bi lan ak lan ak lan ngay faj kenn ku si nekk euh, sëñ bi hmm. aajoom rek moo ko fi indi ndeysaan kenn ku si nekk kii faju kii dindi jafe-jafe yaram kii nekk si doomam nekk bitim réew mënul am lii ak lii ak kayit ay yooyu noonu daal mhm. ku nekk ak sa soxla daal mhm. waaw ku nekk ak sa soxla waaye ñaan naa yàlla képp ku fi teg sa tànk daal euh, sa aajo faju mhm. incha allahu rabbi ci wàllu aaju yooyu sax lañuy des mm, waaw ndax sénégalais yu bari mm. ñii bëgg nañ tukki ñii ñu ngi ci ay jafe-jafe ñii bëgg nañ am doom bëgg nañ am leneen ak leneen mm. cheikh bi tey dama am sama benn xarit boo xam ne ba mu sëy ba léegi mënul fexe ba am doom. Mhm. sëñ bi loolu lan nga ji ci baaxee. waaw loolu ñu ngi koy bindal aaya. Mhm. loolu du sunguf. Mhm. aaya lay doon aaya alquran. lañ koy bindal su ko defee mu siy naan di si raayoo. incha allahu rabbi dina am doom. su fekkee rek su fekkee rek. loolu rek mooy problème am yaram bi amul yàq-yàq amul dara mhm. waaye nag bu xoolee ñu fekk yaram bi dafa xaw am euh, yàq-yàq wala jafe-jafe wala kii mhm. balaa ñu lay bindal ay alxuraan boobu il faut ñu xool mhm. méthode bi ñuy jaar ba pare waaye duñ jékki-jékki rek bindal la ko dañuy xool méthode bi ñuy jaar ndax yaram bi lii yàq-yàq la wala lii feebar la wala lii lu ñu war a ñaan yàlla suñ borom rek waaw léegi ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe maanaam caabi féete leen ginnaaw wala sax ñu bëgg génn dëkk bi cheikh bi loolu ñu baaxee ci lool waaw ki caabi féete ginnaaw moom hmm. euh, am na li ñu si yàlla suñ boroom may hmm. si wàllum kurus si wàllum ñaan hmm. d'accord am am na lu ñuy naan naat naat waaw naat am na luñ siy ñaan incha allahu rabbi ñu am sa tur xam li ngay peese si ay poids ñaata la am ñu am ñu am naat yi am luñ la si ñaanal incha allahu rabbi loo loo yàgg foofu yàgg foofu dangay ngay féeti da génn si biit lii maa la ko wax ku bëgg am doom si lañ jaaroon léegi waaw dañuy xool méthode bi ñu war a jaar lii def def la wala du def def wala lii feebar la waaw su fekkee def-def la ñu din traite dindi loolu ba pare. Mhm. dindi def-def bi. d'accord su fekkente ni nag lii nii li ñuy ñaan yàlla suñu boroom la. Mhm. ñu ñaan yàlla suñu boroom comme niñ ko daan defee. Mhm. incha allahu rabbi ba mbir mi sotti. d'accord boroom kaala gi boroom xalima gi nga xam ne du laal suuf cheikh bi dama sama benn xarit boo xam ne dafa bëgg génn réew mi bëgg tukki. waaye fu mu dem rek mhm. ay yëfam dafay diis lool mhm. lu mu yaakaar rek mu tas góoram pour mu génn dëkk bi dafay xaw a jafe mhm. cheikh bi loolu lañ ci baaxe tamit waaw loolu noonu am na am nañ si sekkere mm. sekkere boo xamante ni ñu ngi koy jëlee si ay picc yu ñu naan keleweej mm. xaw ma ba xam-xam ngeen ko ay picc yu weex tàll la mm-hmm. yooyu daal wàllum tukki ñu ngi si eh, jëlee sekkere boobu mm-hmm. waaw ñu ngi siy jëlee sekkere boobu d'accord waaw kii xëccoo place wala nga bëgg bayre bayre moom euh, bëri na façon hmm. mhm. ban ak ban ak bayre bëri na façon ndax doomu aadama yi hmm. boo xoolee biddéew yi bokkul mhm. moo tax euh, doo xool nit rek nga jékki-jékki rek jox ko bayre mhm. nit ki boo koy jox bayre xoolal ko musulaay ba pare musulaay mooy si wàllum làmmiñ ak cat li koy aar ba pare nga door ko jox bayri mhm. waaye boo ko joxee bayri te aaroo ko day mel ni jox day mel ni suuf nga ko jox mhm. du jàpp te mhm. da koy lor aar ko ba pare nga door ko jox bayri su ko defee bayri boobu dina ko mën a jëriñoo jëriñ si ñim si war a jëriñ incha allahu rabbi léegi kii xëccoo place nag waaw kii xëccoo place tamit na ñëw rek ñu xool bu ko defee ñu jàkkaarloog moom mm-hmm. wala daal mu fexe mu jox ñu turam ak santam mm-hmm. mu jox ñu tur place bi mu soxla bi mm-hmm. incha allahu rabbi waaw euh, jërëjëf sang bi boroom xam-xam bu sell bi euh, tey jii euh, dafa am loo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi maanaam sëy yu bari yi nga xamante ni day tas est-ce que sëriñ bi am na ay ñaan wala ay sangat yoo xamante ni bu la ko joxee yow sa boroom kër di nga déggoo ba mel ni mburoog soow am na gis nga sëñ Abdou am na sëy yoo xamante ni nii du seytaane moo leen di yàq loxo moo leen di yàq hmm? mm-hmm. ñu ngi toll si jamono boo xamante ni nii même boo bëriwul gars yi dañuy bëri daanu su kaw lor la mm-hmm. Mm-hmm. nit ñu ngi toll jamono boo xamante ni nii nit ki warul toog bay boppam dañuy dangay jóg ci sa bopp sa digganteeg sa soxna su fekkente ni nii bis bu yàlla sàkk yow mënoo am si moom kaddu bu neex mhm. te da nga daan am si moom kaddu bu neex am na loo fa jaar gés gëstul say mbir mhm. gëstul say mbir koo xamante ni nii nag yàlla def na nekkoon na si kër gi ba si yàgg mu dem mu demal yoonam kooku dañ koy wootal rek mu ñëwaat wootal mooy lan wootal euh, wootal euh, mooy xaw ma nu ngeen koy waxee si olof wootal wootal wootal. maanaam dañ koy indiwaat dañ waaw dañ koy indiwaat. loolu secret la boo xamante ni ni ñu ngi koy def si sele ba yoon. Mm. bu weer bi amee fu mu toll daal leer naññ daal foofu daal nañ am tur ndaw si. Mm. ñu am ñaari seexu béy bu góor ak bu jigéen bu góor bi mooy ku góor ki bu jigéen bi mooy ku jigéen ki. ñu boole xol yi xol yi doon benn yoon sele yoon yooyu mooy yoon yi fu ñu tasee Mm-hmm. foo xamante ni yoon yi tase yoon yi nag ni ñu tasee noonu lañuy ñuy taseel xol yi mm-hmm. mm-hmm. incha allahu rabbi dootoo déggaat loo xamante ni neexul yow ku góor ki lii maa la ko wax euh, ñu dégg ni ba say sëriñ bi dafa am ay fas yoo xamante ni daf koy daf koy defar euh, fas yooyu nga xamante ni moo ngi koy defar maanaam loolu ci wàllum noob la jëm wala ci wàllum euh, dëddale wala ci wàllum boole ay nit ci la ci la ci lay dox waaw gis nga nopp ab nopp am na fas am na sunguf noob am na fas am na sunguf nit ki boo ko buggee téye téye ko dégg dégg dégg il faut nga boolis fas mhm. fas nag am na ñuy fasee sagar am na ñuy fasee buum am na ñuy ñëw si guy ñu lelli si guy bi boo pare fasee loolu mhm. loolu nag boo ko téewee boo ko téewee nit yaataa ndég de hmm. du dem fenn de lii maa la ko wax du dem fenn du dem fenn hmm. dootul sonal wallaay dootul sonal mais Thierno lan mooy tax nit bu bëggee nit dem yóbbu ko ci sëriñ yéen lu tax ngeen di dox ci wàllu maanaam noob di daje di boole ay nit ay xol yoo xamante ni dañoo bëggante waaw xam nga sëñ ab xam nga boo xoolee am na mbir yoo xamante ni dafa métti. Mhm. yow nga nekk ak yow nga nekk ak nit lu man ñeenti at. Mhm. nga takk ko nga nekk ak moom ba am doom wala nga am ñaari doom. Mhm. mu jékki-jékki mu ne day dem bàyyi mais loolu même yàlla suñ borom bëgg ko. jokk mbokk nag ñun si loolu la ñuy dox. boole ñaari nit loolu du lu bon. ndax nit ki. bu buggee jékki-jékki dem bàyyi la yow am nga droit am nga kii yóbbu ko si sëriñ mm-hmm. nga ñaanlu ba yàlla suñ borom defar seen diggante loolu jokk mbokk la mm-hmm. Mm-hmm. xam nga nga jékki-jékki nga jékki-jékki nga am sa doom mu ànd ak yaayam yàlla tere ngeen ngeen tàqalikoo fas ngeen tàqalikoo toog ba si yàgg doom ji naan an sampap pap an sam xam nga loolu neexul loolu neexul ab yàlla ñu si yàlla musal sang bi dëkk bi doy na waar ak accident yu bari yi nga xamante ni moom lañ fi nemmeeku loolu lan moo koy def jinne mooy def loolu wala rab mooy def loolu wala dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk ci réew mi di def ay jëf ju bon pour yooyu mën a am. waaw kaay xamal la benn mbir nag. Mhm. yoon yi am na tolluwaay yoo xamante ni nii dafa am ñu ko moom. dafa am mhm. lu fa nekk. dafa am lu fa nekk. pour toujours tamit maa ngi ñaax. maa ngi ñaax sama bopp di ñaax waa Sénégal sénégalais yi mhm. nit booy dugg ci oto mhm. fexeel nga jàpp ba set mhm. nga tari lii laa xuraysin walla nga tari alam nashrah nga toog buñ doon def lii yàlla suñ boroom dinañu suturaal ci yenn ci yu bon yi nit ak fu mu munta nekk dafa dafa war a dafa war a laab set waxtuma laa nag yaa ngi jëm si néegu yàlla wala yaa ngi jëm si biir oto di voyage mhm. laab daf baax si doomu aadama baax si doomu aadama mhm. mhm. macha allah euh, euh, mais sang bi ba tey euh, xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni dafa xaw a doy waar am na ay sëriñ yoo xamante ni dañuy mbubboo ni sëriñ lañ nit ñi nekk ba Europe di leen jox seen xaalis waaye du ñu gis la nga xamante ni maanaam moo di résultat est-ce que tey sang bi ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew bu ñu bëggee jokkook ak ci mm. wàllum ut kayit bu ñu mm. bëggee jokk ak yow ci wàllum visa bu ñu bëggee jokk ak yow ci wàllum ubbeeku mm. est-ce que sëriñ bi am na ay tegtal yoo xamante ni lañ fa teg ba bu lépp loo xamante dañ koy soxla dañ koy am waaw euh, sëñ Abdou ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi jokkook waa bitim réew bu baax a baax mhm. te alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi siy gis seen bopp mhm. ñoo ngi siy gis seen bopp te nag sëriñ nag euh, sëñ Abdou sëriñ euh, képp koo gis dafa am si njëklaay mhm. su fekkoon képp ku ñu mont ñaanal mu nangu kon adduna bi ñëpp kon kenn dootul sonn ndax nit ñaa ngi ñaan waaye nag ku nekk ak sa njiglaay fexeel nag bu yàlla booleeg sa njiglaay nga jàpp ko bu dëgër ndax njëglaa yombul mhm. nit dina am dina am xam-xam ñaanal ab du mu nangu mhm. mu ñaanal sérif mu bañ a nangu mhm. day fekk njiglaay abdul du njiglaay sérif dëgg la loolu am na njiglaay dafa am wallaahi njiglaay dafa am kon daal ñu nekk Europe ñoom bu ñu bëggee jokkoo ak yow loolu du doon problème ci yow loolu du doon problème loolu du dem problème si wàllum seet si wàllu seen aaju yëpp nañ fexe ñu jokkoo rek incha allahu rabbi Mm-hmm. waaw waaw sëñ bi euh, yan yan si dégg naa dem nga fii ba Inde dangay dem Inde dem nga ci réew yu mag yi pour uti xam-xam am na ay xeetu cuuraay yoo xamante ni euh, danga koy da nga koy jële Inde maanaam cuuraay yooyu pour euh, pour sa bànneex di gën a yokk wala ngay gën a nit ñi buñ la gisee gën la bëgg la loolu pour pour pour jàppale doomu aadama yi daal mm-hmm. moo si ëpp abdu hmm? mm-hmm. ndax nit ki dalay tiis soxlaam bu la tiisee soxlaam soxla bi day day day am day laaj yenn cuuraay yi mhm. te faaw faaw na la jaral nga dem wuti ko mhm. nga defal nit nit woo woola ne la kontaan naa li nga ma defal alhamdulilahi rabbil alamin loolu amul lu ko gën a neex amul la ko gën a neex mhm. wallahi lazim man de maa ngi ñaan yàlla képp ku ñëw si man yàlla na yàlla na yàlla def fekk man sa njiglaay laa su ma la defalee nga mën a gis résultat Cheikh Boubacar Sow ki doon faj xam faj te xam ni mu koy defee ñu ñëw ci wàllu sunguf hmm. sunguf yi moom naka lay demee sunguf yi ku nekk na wax soxlaam rek hmm. soo ko defee rek euh, sunguf bu ne am na am na lu muy faj hmm. waaw sunguf bu ne am na lu muy faj léegi lan mooy différence bi ñu utiliser sunguf ak ñi utiliser alxuraan. waaw xam nga xam nga euh, sëñ bi. Hmm. gis nga alxuraan. Hmm. alxuraan dafa siis de. dafa siis. dafa siis de. Hmm. alxuraan laaj na laab boo xamante ni nii na ma yàlla baal dafa laaj euh, set lool. Mhm. ñu ngi naan alxuraan sunguf moo ko gën a gaaw waaye alxuraan gaaw na. sunguf gaaw na lépp loo si mën a am rek. baax na mhm. waaye nag li alxuraan di bañ sunguf bañu ko mhm. am na sunguf yoo xamante ni da leen di sangu si biir euh, si biir si biir douche mhm. waaye du dara waaye alxuraan ñeme woo alxuraan mm. ñeme woo ko alxuraan buggul loolu te yow mi koy joxe sax boo koy joxe na nga na nga wóolu ki nga koy jox na wóolu ki nga koy jox d'accord yi nga xam itam mi hémorroïde hmm? am na beneen feebar boo xam ni mooy ndoxum siti mm-hmm. am na beneen tamit boo xam dafa sol nit ñi maanaam appétit bain yoo xam ni dafay maanaam dafa sonal askan bi ba mm-hmm. xamuñu exactement fan la ñu jëm mm-hmm. ñu yebal ñu ci Cheikh Boubacar Sow Cheikh bi loolu traitement bi noo koy defee hmm, hémorroïde moom hmm. wax dëgg yàlla ñun moom ñu faj ko jafewul jafewul déedéet mhm. jafewul ndax bind boog bi euh, feeñ bind boog bu feeñ yëpp mhm. ndax euh, fii am na garab yoo xamante ni fii garab boo mënta gis euh, sëñ bi mhm. am na lu muy faj nga xam walla nga ñàkk xam waaye garab yi nekk fii ci àll bi boo génnee fii ba ngay ñëw gis nga garab yi garab yëpp am na lu muy faj wallahi la azim d'accord d'accord ñu ñëw itam ci li nga xam ne itam sénégalais bëgg nañ ko maanaam nga nekk réew ma nekk ci ay jafe-jafe bëgg ñibbis ci Sénégal gi lee ak sa njaboot sax bi kooku bu dégganteeg yow. Mhm. ci ñaata jour rek nga ko mën a garanti. Ah, xam naa ne incha allahu rabbi buñ mm. ñu def si li war. Mhm. fan juróom laal may nga dugg dëkk bi. nga dugg ci dëkk bi. nga dugg dëkk senegal bi. Mhm. fukki fan ak juróom sëñ bi. fukki fan ak juróom. laala may bu ñu xoolee li si war ñu def ko. Mm. fukk fa ak juróom laal may nga dugg dëkk bi. Mhm. incha allahu rabbi. Ah, wallaay jërëjëf mbokk yi tey nag ñu ngi fii ba tey ci Daara Jolof ñëw seet si ni ma ko waxee sànq xam faj donnu faj te xam ni mu koy fajee ma ne ma ne nag warul waaye su ñëpp ne yow a yow a ba ñu tolloo ci garage bi laajte kër Cheikh Boubacar Sow dañ ñu ko wan ndax lan na muy fajee ci yar gi ci tey gi waaye boo ñëwee itam nam lay ak accueillir dalal sa xel bu baax Cheikh bi looy wax say clientèle. samay euh, samay ñaan say client samay client mm-hmm. samay client de wax dëgg yàlla ñu ci bëri mm. depuis ba ñuy jëflante ba léegi mm-hmm. incha allahu rabbi ñoo ngi am ñoo ngi gis seen seen avancement mm-hmm. si wàllum muslaay bi si wàllum chat bi si wàllum ubbeeku bi si wàllum faj bi tamit waaw ñu ngi si gis seen bopp daal. ñu ngi siy gis seen bopp waaw ñu ngi siy gis seen bopp ba ñoom si seen wàllu bopp dañuy kontaan. Mhm. ba ñu may ñu may ñu may ñu may ñu may teral di ma seet si chaque jour. Mhm. Mhm. d'accord waaw. kon nag mbokk yi mi ngi noonu ñoo ko déggandoo Cheikh Boubacar Sow nekk fii ci Daara Jolof képp nga xam ne itam bëgg nga déggante ak moom da ngeen gis numéro yooyu noonu di affiché ci bar écran bi mën ngeen ko woo disponible na 24 heures sur 24 te fu waaye mën di nekk ci réew mi itam boo ko woowee. mu daal di dalal sa xel mën ngeen ko woo ci 77 690 75 78 77 690 75 78 foo mën di nekk ci réew mi boo ko owee rek incha allahu rabbi la nga bëgg dina la ko defal. incha bi looy tàggoo. waaw gannaaw bañ sante yàlla. Mhm. julli si yonante bi ñoo ngi sant waa Sénégal yëpp di. nuyu waa Sénégal di nuyu waa tamit bitim réew. Mhm. yéen tamit ñëw fii di ma seet si tamit maa ngi leen di sant tamit di leen ñaanal. Mhm. yàlla may leen gudd fan ak wér ak wér la. li ngeen di def nii yàlla suñ boroom jàppale leen. Mhm. ngeen ngeen avancé si bu baax a baax. bal quraanil karim jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun ñu ñëwoon fii ci Daara Jolof gis ngeen dëkk bi ni mu naatee. ñëw sees si ki nga xam ne moom mooy Cheikh Boubacar Sow waxtaan ak moom ci xam-xam pour mu dimbale askan bi ci jàngoro yi nga xam ne da leen di faral di dal te amuñ pexe moom nag boo ko seetsee incha allahu rabbi dina la fajal sa jàngoro ba pare itam topp la bokkul ak sëriñ yi nga xam ne dañ lay jox garab rek toog di la seetaan déedéet moom da lay jox garab ba pare toog di la seetaan en même temps di la topp di xool traitement bi ba lépp li nga xam ne itam moom moo la dal moom dina def kémtalaay kàttanam ba feebar boobu bàyyi la waaye itam ñi nga xam ne dañoo ne ci jafe-jafe ñi bëgg tukki ñi nga xam ne dañoo bëgg bayre ñi am jafe-jafe ci yenn feebar yi comme hémorroïde wala jaare lu ci mën di doon bu ngeen seetsee ki nga xam ne moom mooy Cheikh Boubacar Sow yàlla suñu borom may na ko xam-xam boo xam ne da koo donn da ko donn ci ay maamam donn ko ci ay baayam nekk fii ci daaro Jolof ku xam daaro Jolof xam na sëriñ fii la sampu taatam fii mooy daaro Jolof ku leen laal lal nga lalaake jërëjëf Cheikh Boubacar Sow نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي